ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax di ziar seen wàccuwaay bu wér wér tey ñu ñëw fii boo géej ci biir xale daanaan champion bari def ci biir set tey nag li ñu ko mooy avec Frapp mu journée la vingt ak Modou Baye Fall moom kenn doon ko présenté gars xam nañ ko bu baax a baax a baax dañ mu nuyoo rek waaw balaa ñuy wax dara dañuy sant yàlla bu baax di nuyu waa Mbour ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nuyu sama waa di nuyu sama waa dëkk Fatick bu baax a baax di sant yàlla bu baax na mën na ñii amul seen fay wallaahi amul kenn ci ñoom boo xamante ne toog yëkkati naa ay dégg saa yu ma xamle dañuy ñëw teew comme boog amul seen fay quoi waaw danaa ko sant yàlla nag di seen sant suñu waa ñaari waa baax a baax xam ñu sant yàlla baax waaw mais moo gën lan moo la dugal si xale bi nga xam ne moo dar soo te adversaire yi nekk bi nga tànn waa Darso mbër la ko man amul la te ñëpp dañ ko fiy bàyyi voilà man tamit ñëpp dañ ko fiy bàyyi di ma daw ok boo xamante ne ñëpp dañ ko fiy bàyyi nag man tamit ñëpp bàyyi ma voilà bu jëlantee combat boobu noonu day dem maa ngi dégg nag ay wax maa ngi dégg muñ dellu bu di wax suñu taw bi di wax mais moo ko tàjjee moo ko tàjjee rek mu ne ma pour boppam day yem suñu boppam bu ñu dóor day yóbbu si mu ne lu war a loolu mu ne bu mu anticipé da dawal ne moom bu mu dóor boppam bu mu dóor. voilà moom dafa am lu umpale quoi moom dafa yaakaar ne moom dafa am lu nekk si moom te wallaahi li nekk si moom. li ngeen élève di def tableau loolu laa koy def léegi waat bu mu nuyu journal dama ko évalué moom sax bi Jangan lupa dan waaw damay ñaan yàlla nag bu ko demaatee mu demee noonu quoi. ak dal foofu bokkul moom nee dama fas yéene tegi bëre teg nee fas yéene laa du ma bëgg a tëdd man adversaire bu nekk ak ni may bëre moom daa foog adversaire la moom adversaire mais wallaahi yàlla xam na ne ñu nekk si man nekk si moom. waaye ñii tax sama nekk ñii aliyaa bi ñii yabu ma leen mafia bi wuutu rasulaay yabu ma leen bay dem fee de doo yaa ko non non. jàmbaar laa te dafa am lu yaakaar ci man ma dal di président voilà maa ngi dégg ay wax mais wax yooyu noonu maa ngi dégg ay wax non maa ngi dégg ay wax mais wax yooyu ñu ngi yóbbu dof man tontu la ñu ngi rasul laaj te gis nga nii ñu moom la nekkee ba xale ba léegi maa ngi bëri dafa am ñoo xam ne nag xamuñ ñu ngi wax nag mais yàlla ñu yàlla si dara ba fay incha allah. ba fay si moom la ñu fay day xeex wala day bëri lépp. lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp

Wallaahi di nga toog au moins yoo xamante ne ñëpp juwee nga wala rasulullah tey man sama mën ko góor ñu mën xeex man moom day wax rek day wax xanaa ni muy làmb sax même bu doon faay kene kene kene kene mën na rasulullah bu amee dix dix coups ma am benn mu dem seen kër mën na rasulullah mu dugg léegi mu jëm ak ginnaaw. lépp daal di leen rafet. léegi dafa ko ne nag. borom dama ko yóbbante ay dafa wala ay taa. xaw ma ko seet mu dégg ko. tey moom mi def waya ne sere man ya ne sere ima bi boy ndaw yi damay dox dina ma yàlla la yàlla may ndam ñu ñu ñu la loolu loolu li ma yóbbu jom dafa bu ma ko tànjee wallahi bu ma ko tànjee ñu góor tànk ndaw. waaw sama diggante Modou Barra promoteur la rek est donc moo bëgg ama promoteur bu la bëggee loolu yow sant yàlla Modou Barra dama toog moom man mënul mbër loolu bëgg a tegal quoi waaw te maanaam moom wallaahi loo xamante ne hors lamb lay doon te lii ma la wax nii dinaa ko def waaw combat bii nag lépp lu mu si man dama koy def def si dima nag moom kooku du ma téye donc bu ma nëree yàggal ci yoon bi tey ma xaw man wulul rasulullaahi kooku dëgg ma ko bët xaw ma laa ko bët ci kaw. ca kaw ca kaw tey nii dëgg ma wax la. wala laa teg ci bët yi dama la gën tey rek li may déglu fii mbuur fii mbuur fii dafa am lu ñuy jooy te wallaahi seen logo man maa ko war a feeñ. voilà yow xam nga. kii kon mbër la bu ma bëree mbër laa bu ma bëree mbër laa day wër gis noonu ak ay ndaanaan kese su mel ni Pam Mbow voilà su mel ni kii da nga gis kii mooy Saara Baye tey lu mu bëriwul baaxul su mel ni Nokila ay waay arrière ay ay champion kese ñoo nekk sama ginnaaw kon tey jii li ma war mooy ndam kese bu may sabablu nag du may yàlla mais damay ñaan yàlla mu may ma ndam incha allah dama ko am. bëre ay man dama si nekk rek may dee kon xam naa li ma war a may de man entreprise laa ñu yaakaar si man dañoo bëri dama dama doole nag mais bés bu ma amee doole képp ku topp sama ginnaaw wallaahi doo jooy dara dara doo ko jooy wala doo wala loo wala ngay tàggatoo si boobu rek xalaa fu séeréer kon laajte naa o ɓiy dana naan nan en hewlu ɗi ñaananam mo ciyama nam kuna sere som hey mele do dal wallahi aga jom ne ko o tala te mele bisal no no no ala gila ni sere do sere ya karu hey la fa ya ko banyo do mo ko ya no ko ma fene ge ni ngero tel ni na na mo sa mo hey ko ya sa te som ko uh, ya ma dem ya do baw do fa ge euh comment dire wagne zoal wagne voilà bu wóor ñëpp bu wóor dina tamit amuñu la. voilà xam nga ñëpp bàyyiwul kenn. looy tàggatoo ak lan ngay yóbbu ci si man li may tàggatoo mooy sama supporter xam nañu dama leen di laaj hey. xam nga kon. li ko waral. xam nga kon li ko waral. amul dara wala yóbbu si ma. sama supporter nee nañ. muy yëngu lu bis ko góor a ci. te ci yàlla àndal loolu laa lay def. ñu dëgg sa. ku ñu woo ci biir la ñu dëgg sa. ku ñu woo ci biir la ñu dëgg sa. ku ñu woo ci biir la ñu dëgg sa. ku ñu woo ci biir la ñu dëgg sa. waaw dama lay wax fii mooy Mbour Géej. fii mooy Darou Salaam. Mbour Géej. dëgg baani. su ma naree ragal dañoo fi génnee. ñun ñoo mu suñu laaj ma naree ragal wala may xox tey dëkk bu ndar am na ñuy génnee man. ay waay booy génne ñu ragal waru mu suñu laaj man tey yow tey yow man damay toj dama leen di toj xam naa. boo ragalee toj. dama leen di toj. mais damay jël day wax man léegi dinañ ñëwee dañuy ànd ak amal. ne ñuy wax may wax suuf ma toppee internet lañ ma toppee. tey fii kan laa fi mas a jox mille franc amul kan laa fi a jox dina kenn kenn mosul xoolal fii ma dugal si sama dërëm chaque jour ñu ngi wax mais loolu nag lu may wax kat mu ko xamante ne damay jëf ba pare di wax mais nag damay wax ñuy wax. dañ ma bàyyi ak booy bu waaw bu ma bëgg na ma bàyyi ak ñoom. Liss Cam. dama li bëri mu ngi si laaj. si laaj lañ dem nag ba mu si ginnaaw. te bu si yàlla amee sala lépp lu ñu bëgg. wala ñoom lépp lu ñu bëgg suba ba ngoon man si laay taxaw. bu si yàlla amee. ma sant yàlla sant ñëpp. di gërëm ñëpp. sant sama yaay bu baax. sama yaay. sama yaay moo koy sant bu baax. sama yaay. wala bii moo koy sant bu baax a baax. man dama koy tooñ ay dégg nga wax ne ko naa ko mu jégal ma donc alaala man la tey ma koy def lu ko naqari ñu mun ko wala yaayam voilà ñii damay nekk si loo xamante ne neex ko mais day wax sol dama ko ne moom groupe bi de mais loolu du dara te day bàyyi lépp pour ne alaala man kii sama yaay man ba mu fekk ma seet sama yaay baax bu baax a baax sama yaay maa ngi sant bu baax a baax ma koy waxaat maa leen di seetlu ma sant naa sama yaay bu baax a baax waaw. ñoom na ko tey Pape Mbow maa ngi ko sant parce que kooku wóolu ma ko man kooku gis ma wallaahi yàlla xam nañu woo ma ko lu bëri man ko gis leen. Serigne Bob Paul. hey aw ma la fay. ay dégg sant mafia booy jërëm bu baax. mafia booy jërëm bi maa ngi leen di sant aw ma seen fay ñun nit su laay bu méttee ñu man bu naqaree ñu man bu neexee ñu man waaw di sant sama aléa bi nag. xale yu jigéen ñi di dugg am yi maa ngi leen di sant bu baax di sant sama xale yu jigéen ñi nekk sama koñ. xam nga voilà di sant mafia Senelec bi Aliou mafia Senelec bi voilà ñoom dama leen di sant bu baax a baax. di sant Assane Golo ah, oui waaye fii maa ngi leen di sant waaye loolu la bëgg moom wax naa loolu. waaye fii waaye mbootaay Moussa sama yaay tey dama bëgg bu ngeen toogee sax sama leen dara dama bëgg mbootaay Moussa bu ngeen toogee day am ñaanal rek ndam sax sama leen tous tous tous mo le eh sama père mami kama bu bi ru la ko sari di ko gërëm waa famille sama waa dëkk sant naa leen gërëm naa leen